baax na auzu bu fekkee da am problème mu biir feebar bi me da dem ci déem nga tari faatiya dagg benn xob tariwaat faatiya dagg benn xob ba muy set xob nga yëy ko ba mokk nga muuc ko wan na ndox mi bu dee loolu lépp amut maanaam da ngaa am estomac wala ulcère jëlal xobi déem yi rek dem ci déem yi tarifaat rek wat dagg yëy ba mokk nga muuc ko estomac ulcère rek bari na feebar bu bari bu muy faj ak diabète ak yëpp fekkee tamit dangaa nekk ci place wala nga bëgg njaay mooy dox da ngay wut sebritum giléem sibiritum gila waaw sibiritum gila mi da ngay jënd cuuraay liban pire dafa nekk nag bayra boo xam ni bayra boo xam ne ni soo ko defee yoon da ngay toog lu am mat fukki fan wala toog semaine nga door ko defaat kooku bayra boo boo ko defee soo ko defee soo ko su la neexee sa loxo ngay jël rek teg nga def nga suru bam dugg ci nga dugal soo ko defee yow da nga yéemu ci sunu borom sax bayra bu ko ëpp doole man def naa ko de bayra bu ko ëpp doole man gisaguma ko. expliquer luy gileem mooy loolu mbaaxum gileem li nekk ci mbaaxum gileem gi rek buñ ko rayee waaw beneen bi mooy maanaam wàllu gàllaaju kër maam da ngay jënd ab xaal soo jëndee xaal bi ba pare nga nga opéré xaal bi li li nekk ci biir ba set nga jënd dugub jënd ceeb def juroom ñaari dërëm dugal ko ci biir yak ko ci biir lepp ci biir xaal bi nga gas ci digg kër gi ba mu xoot nga ni nga ko opéré won nga koy jël wat ko sul ko ci biir digg kër gi dara dootu manqué ci kër gi waaw ci kër gi day am karangé bu la nexé boy booy génn sa pee ci jàkkaarloo bunt kër bu la neexee nga def ko ci digg kër yaa xam foo ko def daal suul ko moom daj rek waaw loolu de la ñu amoon ci lu ñuy joxe ba beneen alxames bu soobee yàlla.